الحمد لله الكريم سلما على استقالي بفرود وسمن بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سحرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاب نخل قاوية خلق الله العظيم ما شاء الله دنا يلا خير يلا بغل من وحيدي دو دفن دلنا aad wa thamud yonent yàlla musal ñuy wax ne yonent alei salatu salaam xaswatu Taabuk bi ñu demee ba toll ci tund woowu ñi jiitu woon dañoo ñëw mu ne bu kenn naan ci déeg yi fekk wala yi dex yi ba yàlla alakawal ñooñee bi mu ñëwee fekk am ci ñoo xay bi dañoo tàmbal di mooñ lu mel ni sunguf si ñu yoroon di ci waajal ay beñe yu mel na yonente bi nii bu ci kenn jëfandikoo nee na sallallahu alayhi wa ñëwee ba toll foofu sax moom daa dar bakkanam te xoolal diggante loolu alal boobu ba mu amee ak foofu loolu ci dégg mooy malaaka yi leen dafa am jeexital foofu alal gën ñu alagal ñooñee pënd ba maanaam jeexital loolu moo tax ñoom sallallahu alayhi wa sallam wax nañu dafa dër dar ay bakkanam bokkul sax no noy yi mbugal ma yàlla mbugali woon nit ñooñu foofu te ay man nañu ay siècle de siècle nga xam ne ko li ci déggante mooy barab bu ñu defee ak jaamu yàlla boo xam yàlla nangu na ko ak dañ faa def loo xamante ni yàlla merewoon na ñooñu balaa leen allah kulli haal loolu day def taasir boo gisee makkatal mukarrama gën a ci kaw suuf ci pàkk yi suuf la comme suuf yëpp waaye nañ fa def ci jaamu yàlla ak lañ fa jëkk jëf jaamu yàlla ak barabu yàlla ba fa nekk la wuté ñepp lool mo ni pour moo nuy yeggale ci suñu barab bi mag ni baax ñi am ci réew nan ko gëna a barab bo xé nit yalla dafa né ba def fa jaamu yalla fa la gëna yombé lu nungu ak ñaan waye barab bépp bo xé ni moy lañ fa yalla ba yalla mbugal non lo gëna mëna moytu liku lu fa né garab bu fa né sax di ko dé ko moytu ay na ben xissa la bo xé buñ ci duggal man nañ ci andi ay taxalixaat yu bari ma sha allah daara ji lii la nañ koy saxal comme ni ko euh, oustaz euh, sëñ Moustapha waxe mm-hmm. iftitaax bi ndax xel yi ñoom ñëpp fii lañuy jàng sëñ Maxtaar macha allah ñoo ngi sant sëñ xaari bi ko yore mm-hmm. ndax fii dëgg la yàlla li ñuy am ci waxtu di jàng néew na mm-hmm. waaye yàlla def na ci barke dibéer la ñuy jàng waaye ngay gis nii ñëpp dina jàng alquran maanaam taj bi mu taj bi mu jàng nii euh, fii la ko gën a maanaam tasxiixe tabjiit ko fi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon nañ gën a fonkaat daara waajur ñi dimbali jàngalekat yi bu ñu leen dimbalee rek tuuti la leen rëccën wa man tadaaraka lasi qad faata min allaga wa amara al awqaat bi tawbati nasu wal iqbal ila llahi faasa bil kamal te loolu mooy am so li ci ëpp solo faasa bil kamal yeneen yàlla doolu dimbali ñun ñëpp di jaay sidna bi fi ñu koy mooy dafa am loo xam ne islam dafa koy aaye boo demee ci lax la riyu mag ñi dañuy wax làq jariñu sëñ Tuubaa way ko tudde ko na nafis day aay ngay xool ak jullit xoolin boo xam ne da koy lor léeg-léeg nit xool la bët boo xam ne bii xam nga lim ci wax ak yow. dañ koo aaye dañ dafa doon xaraam. jullit bu tooñul deful dara lu aaye nga di ko xool yéen gët yi islam daf ko aaye. kon loolu li ma ci bëgg wax mooy réew mi ñu nekk am na ay geste yoo yoo xam ne daanaka mën nañu wax ak yow ba noppi ba ba liñ bëgg wax lépp ñu wax ko te duñ wax duñ la benn. marque italien bind rek nangam naan kàppoo bi mu ngi ñëw xeeti bind yooyu daf cee am yoo xam ne bii nañ ko bàyyee ñoom ñoom jëfandikoo waaye ñun bind ji loolu moomuñu geste yoo xamante ni saaga la wala xas nit ki la wala jéppi nit ki la yéen ci tànk yi dinañ ko may tamit ba ci sax alhamz wa lams piis ci bët waylu li kulli humazatin lumaza alladi jamaa maala wa addada kon loolu suñu diine kon seetleen yi nga xam ne nii dana dëppoo suñu yi yéen tout tànk yi ak mag ñi ñëpp sax am na mag ñoo xam ne dañoo tàmm ay geste yoo xam ne bi loolu ak jullit war a ko tàmm geste boo xam ne leer na li muy tekki mooy yaa ngi gëdd kii wala yaa kii loolu nañ ko delloo ginnaaw mbokk yi te sëñ Tuubaa dafa waxoon ni tamalal sa làmmiñ lu baax ndax làmmiñ loo ko tamal lool lay tàmm ci nañ ko xatal xaaj kon sëñ bi dina ci ñëw ko leer leneen li ci muy fiqu ibaadaat mooy julli mbokk yi imaam boo ko toppee mooy sa kilifa xam nga lan mooy imaam ci baatu istilaaxam imaam mooy buum bu nga xam ne yi da ko yor bu ñuy natt bâtiment kii jàpp fii kii jàpp fii pour mu batiment bi jub gis nga bu ja bu dee bu jubul ba nga tabax ci balaa yàgg nga gis fekk fekk loolu ci baatu imaam rek maanaam baat bi loolu lay tekki imaam dootu la mënee ci kalam bi kon yow mi koy roy waroo koo mooy ci genn li ma bëgg a wax da nga gis koo xam ne day topp imaam imaam sëlmal mu toog fa di yeggale looy yeggale sëlmalal bu naan damay doon jàng iggul déedéet a rukkoon nga nekk daggal la ngay def wala ñuy taaye imaam jëkk laa yegg taaye sëlmal nga naa damay eggale loolu du yoon fu imaam lu dañ laa wax ne ne imaam mooy sa imaam lu mu def def ko doo fa yow amatoo benn responsabilité ci julli gi lu dul sàmmonteeg farata yi yenn juumte yi nga xam ne bu la dalal sax da nga koy sujootal boo toppee ci imaam bu la dalee doo ko sujootal kon nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax imaam kenn du ko jiitu waaye nag lu mu def da nga koy daal di tafadal mastura ak tarjama dina ko tëb itam salaamaaleykum oggi parliamo di imitare dei gesti di non imitare dei gesti che fanno alcune persone sia cristiani musulmani che tutti come ad esempio quando vediamo dei gesti che non, che non vanno bene magari dei gesti che insultano o prendono in giro una persona, cerchiamo di non farli anche noi. Ma anche se li vediamo cerchiamo di lasciare stare e pensare a altro, senza star là a imitarli o dirle altre persone, perché potrebbero ferire altre persone. Assalamu alaikum. الحمد لله الكريم على استقالي بفرود وسنن